Euh, nun la ca des nag ci question bi mooy ndax dañuy jaar ci voie référendaire waaw bu ko laajee parce que question moo ne soo seetee suñu constitution ci domaine législatif la bokk compétence su assemblée nationale la question moo ne salaamaaleykum téléspectateur Diaspora Vision ñoo ngi leen di nuyu di dalal fii tey Ousmane Sonko fii ci Diaspora bi rawatina fii ci Brescia euh, président Ousmane ginnaaw bi ñu la nuyoo dañuy comme nee nañ temps bi daf ñoo tënk damay dem directement rek ci question bu njëkk bi euh, président Sonko dañu gis yow da nga tenir trop ci ñu génn ci franc CFA bi. est-ce que euh, premièrement est-ce que noonu la yombee deuxièmement yow nan nga ci fas yéene dugg nan nga ci fas yéene génnee Sénégal ndax dangay jaar par via voie référendaire wala nooy def ba ba daal ñu génn ci. waaw question bu am solo nga posé franc CFA bi euh, ñun wax nañ ci bind nañ ci wax nañ li ñu jàpp ni mooy li ci bon ak li ñu jàpp ni mooy li ci baax te jàpp nañ ni li ci bon moo ëpp téeméeri yoon li ca baax kon su dee ci anam boobu la ñu nattee. ñun dañoo bokk ci ñu jàpp ni war nañ cee génn li nga wax léegi nag mooy ndax génn ci yomb na su dee suñu digganteeg France génn ci lu yomb la parce que li sénégalais xamul mooy benn article rek mooy régler loolu ci ci ci convention bi ñu am suñu digganteeg France réew mu bëggatul bokk ci franc CFA da ngay bind rek ne man jël naa sama décision à partir de telle date ne dootuma bokk ci franc CFA c'est aussi simple que ça amul lu ñuy négocier amul wax ju bëri ku ci bëggatul bokk daal moo tax temps yële euh, président France ne réew mu France français fa intéressé tul tu es libre de partir mais amul benn procédure particulière te français fa ñu fàttali nit ñi ni bokkul ak UEMOA parce que ñu bari sore damay génn français fa dañu jàpp ni loolu dafa tekki ni kon dootoo bokk UEMOA accord yi ñu lié ak France ci français fa bokkul benn yoon ak accord bi nga xam ni ñun pays UEMOA yi ñun juróom ñetti réew yu bokk UEMOA suñu accordu bopp la nit mun na bañ a bekk bokk franc CFA bokk UEMOA nit mun na bañ a bokk franc CFA bokk CEDEAO parce que loolu nit ñi dañuy argument yi ñuy wax la naan moom dafa bëgg a euh, tëj Sénégal déedéet soo seetee zone CEDEAO 16 pays la euh, fukki réew ak juróom euh, benn ñoo fa nekk moitié bi rek ñoo am franc fa mais Nigéria bo yorul franc CFA Ghana yorul franc fa Sierra woon yorul franc fa keneen ak keneen Gambie yorul franc fa kon buñ ñu gëmloo ni problème francais fa ak problème mu ensemble régionaux yi dañoo ànd ànduñu bokkuñu donc soo buggee génn da ngay bind ne ñun bis ni ki tey bëggatuñu bokk francais fa génn nga français fa mu des nag ni ci suñu biir ñun dafa am lu bëri loo xam ne day ànd ak moo maa tax man mosuma ne dañuy xëy génn français fa dama ne dinañu génn graduellement dañ koy processus la dañ koy préparer parce que question monnaie dafa lié question fiscalité mooy lempo gi dafa lié question ressources naturelles yi dafa lié question démocratie bi institution yi donc yooyu yëpp ngay boole def ci réforme yu baax soo bëggee dem mais soo génnee soo jëlee mone bi moom dong mënu la yóbbu soo génnee ressources naturelles ñoom dong mënu la yóbbu kon ñiy critiquer sama position dañu liiru sama livre parce que ci livre bi vision d'ensemble laa ci wax li ñu war a def secteur bu nekk nag ma ne lii lañ ci war a def boo dajalee réforme yooyu yëpp moo ñuy jox modèle bi ñu soxla nun la ca des nag ci question bi mooy ndax dañuy jaar ci voie référendaire waaw bu ko laajee parce que question monnaie soo seetee suñu constitution ci domaine législatif la bokk compétence su assemblée nationale la question monnaie su dee compétence assemblée nationale man am naa sañ-sañ su ma nekkoon président la république jël initiative loi proposé ko assemblée nationale. assemblée nationale am na liberté de dire nous votons la loi ou la nous ne la votons pas député itam su ñu demee ba mat trois cinquième am nañ sañ-sañ jël initiative bi proposer une loi. donc fi mu toll nii principe bi la ñu posé gum bu ñu demee ba toll ci néew ñu suñ ñu falee février 2004 mars 2004 génn nañ français wax ñu loolu de dañ ne dinañ ko préparer graduellement am nañu tey la ñu soxla yëpp ci xam-xam boroom xam-xam yu Afrique yi ak Sénégal yi wax ci français fa te bind ci ay téere yu wane dañ ci war a génn wax naa la bu ci mujj mooy ndongo Samba si la barki dem génne na ñaareelu livre ci français fa bu njëkk bi mu ngi ko tuddee woon servitude volontaire donc ñooñu ñëpp dañ leen di dajale ñoom docteur Abdourahmane Sarr nga xam ne nekkoon na sax directeur FMI parce que nit ñi suñuy wax tey de gis naa kenn ci acteur politique yi naan ñu naan euh, tel recadre sonk kenn recadré wul kenn parce que gisuma gisuma argument bu mu teg moom lu dul euh, euro devise la donc suñ ko yoree ci mais dollar du devise léeg leen du devise ñi am seen monnaie propre dañuy liggéey ak bu la neexee sam nga am li ñuy wax panier de devise bañ a rek ci benn devise booy liggéey ak les pays anglo-saxons ak les pays asiatiques nga mën a liggéey ak dollar bi bu boobaa ñoom ison sont pas obligés de passer par l'euro dellu si muy tour bu rëy booy liggéey ak les pays européens nga utiliser le le truc Maroc noonu la def donc yenn saa dañuy wax wax yu léger yoo xam ne ay euh, euro c'est une devise soo ko yoree mun nga ko mun nga ko weccoog kii mu jox la mu jox la devise booy utiliser mais ñi yor seen monnaie yëpp dañuy liggéey ak devises yi mun nga liggéey ak ñaar ba ñetti paquet paquet de monnaie su dee tey dem nañu ba suñu commerce li ñuy liggéey ak Chine moo ëpp li ñuy liggéey ak ñeneen ñëpp dinañu am intérêt xool ni ñuy def ak la monnaie chinoise boobaa su doon am nga panier de devise boo xam ne CFA mu nga kii euro nga fa ak dollar wala neexee nga dama ci yokk yuan bi noonu la ñuy fonctionner et ça te plus de latitude et plus de liberté mais tënku rek ci benn arrimage fixe boo xam ne dalay jox ne boo xam ne dafa ëpp sa koom-koom munoo exporter ba ba am ci li nga ci war a am ba pare sa sa 50 pour cent réserve da nga koy obligé déposer trésor français waxuma banque France de trésor France nga koy déposé loolu musiba la kon ñun li ñu wax dañ ko wax mu leer en xawma keneen de waaye man bu soobee yàlla bu dee ñun la ñu fal dinañ njëkk ñëw toog ak ñi ñu ko bokkal mois ne leen ah sëñ bi français fa bi baaxul. ñun ñi ko bokk ñëpp nañu xool nuñ ciy génnee su dee dañ ko bokk war cee génn génn gi yomb na mooy France dañuy génne français fa France dootul nekk ci conseil d'administration bi dootuñu jël suñu 50 pour cent réserve di ko déposé ji trésor français loolu loolu suñ ko defee génne nañu France ba mu jeex lañ doon déposé trésor français ñun dinañ ko gérer suñu bopp dañu koy déposé BCEAO boo ko déposé BCEAO surplus bi ngay am mun nañ ko utiliser pour financer nos économies balaa France di ko jëriñoo donc su dee ñun ñëpp dëppoo nañ ci français yi génne mu dem yoonam ñun ñu toog ak suñu monnaie bu dee nag ñoom dañoo bëgg a continuer fa ñun ñu jàpp ni franc fa bi baaxul ci ñun ñun nañ jël suñu responsabilité moo xam ci deux ans la moo xam ci trois ans la moo xam ci cinq la nañ jël suñu responsabilité mettre en place progressivement am nañu toutes les compétences am nañu ay économistes am nañu des spécialistes la monnaie am nañ tout ce faut pour mettre en place suñu monnaie ma fàttali ni Gambie dafa yor monnaie Mauritanie yor ko Kenya yor ko Rwanda yor ko Afrique def na plus de cinquante pays cinq plus de cinquante pays seize ñoo ci ñoo ci nekk ci franc fa te seize yooyu ñoo gën a sonn Afrique Ghana ñu ëpp doole euh, euh, Namibie euh, Botswana keneen ak keneen ñëw ñëpp seen koppar la yor waaye ñun dañ ñoo formaté ci colonisation ba gëm nañ ni lu ñu def lu lu ñu suñu tàqalikook France ak dee nañu loolu leer na li nga wax ci franc CFA président dama dama seetaan sa benn dama seetaan sa benn interview bi nga nekkee France am benn sama benn naataango bu la laaj est-ce que pare nga pour nekk candidat wu PDS nga ne ko waaw mais sans condition. ma ci question boobu laay rebondir président est-ce boo demee porte bannière u parti démocratique sénégalais doo trahir une parti de ñi la topp parce que am na ñoo xam ne ñii dañu disqualifier la classe politique traditionnelle. yow nga ñëw indi euh, nouvelle vision indi benn gis-gis bu bees moo tax ñu topp la am na ñoo xam ne ñuy jàppoo na yow boo demee ànd ak PDS wala nga porté bannière PDS dem dem parti dem élection euh, ñoom di dinañ sentir ils se ils se sentiront un peu trahi. d' abord man du ma porté bannière kenn suñuy suñuy dem suñu bannière la ñuy porté suñu coalition joxaguñ ko tur waaye mun na tudd Sonko 2019 mun na tudd leneen ak leen ñun suñu bañeeru bopp la ñuy demee. jëluñu bañeeru kenn loolu daf il faut mu leer d'abord parce que su doon nañuy dem tudd candidat PDS wala candidat Massamba ñun duñu candidat candidat wu Sénégal lañu mais sur la base de la coalition qu'on de construire ñun suñu bopp te tey am na lu ëpp fukki parti ak juróom ak ay mouvement citoyen yoo xam ne ñëw nañu dugg nañu déjà ci coalition bu ba mettre ñu en place un directoire provisoire di gën a discuter ak ñeneen ñi di yaatal loolu mooy benn ñaareel bi politique la ñu nekk dañuy jëm ci essiance électorale sénégalais bu ñëw ne jàpp naa ne yow yaa ñu doy seen candidature moo ñu doy pour ñu defar réew mi ubbil nañ la suñu bunt li bon mooy nga def ko sur le dos du peuple sénégalais mooy négociation yu doon am ci ay séddoo ay post ay séddoo ay responsabilité wala loolu duñ ko def kenn waaye tey lu mel ni PDS su doon président lay waat dem na ba gis ni ñoom mënuñoo am candidat mu ne waaye fas yéene mu banque samay yoxo ndax réew mi toll na foo xam ne il faut ñu defar ko te jàpp naa ni jàpp li ma gis fii Sonko laa yaakaar ni ku ko jàppale ñu defar réew mi da nga foog damay ñëw naan ko déedéet bul ma ñëw jàppale ñëwee joxe ndigal wala joxe mot d'ordre ñun on est preneur parce que politique addition la dañoo soxla doole waaye du nekk ci kaw boo boo ñu jàppalee dinañ la defal lii wala dañ la defal laal dañ la defal lii loolu du doon ñun duñu dil mukk ci doodee sénégalais mais képp koo xam ne sénégalais nga am sa carte yaakaar ni Sonko ma doy Macky ci boppam bu demoon ba xam ni mënatul te mu mënul sax day mais bu demoon ba rendre compte ni mënut mu def li François naan defoon musal sénégalais ci musiba yi rek ne arrêté na bu wëlbatikoo ne man maa ngi woo ñëpp. ñu ma doon bëgg ñu ma bëggoon woteel ñu woteel Sonko loolu da nga bëgg ma de génn def déclaration ne déedéet ku ku ku ku Moussa kii Macky Sall rek bul ma woteel dafa am loo xam ne du rationalité mais li am solo mooy naka la ci quelle base dañ ko defee ci cadre boobu nag laa ne su dee président Abdoulaye Wade jàpp na ni dafa war a joxe ndigal pour ñu jàpp pour ñu woteel ñu tàllal nañ ko loxo on est preneur président Abdoulaye Wade nag am na lu ñu d'accord loon nag moom ci gestion am te loolu la sénégalais bi gis ba sanctionné ko waaye nag bari na tam loo xam ne ci gestion am suñ ma dajale woon ñi fi mus a nekk président yëpp moo ci gën ndax au moins ñun souveraineté bi ñuy xeex patriotisme bi ñuy wax moom au moins bokk moom rek laa gisoon mu ñemee taxaw ne tubaab bi lii ànduma ci lii dooma ko def loolu lii naa ko def te loolu dafa bokk ñun ci suñu komba kon nit amul nit boo xam ne léppam dafa négatif nit ku ne da jël li nga yaakaar moom mooy li baax ci moom li nga xam ne mën na ànd ak li ngay def nga ànd ak moom dem et donc cadre boobu dama bëgg mu leer ku ku xamul politique ñun yàgguñ ci politique duñ politicien acteur politique lañ ku xamul politique moom day nekk ci ay liñ lay tracé diw su defee lii man pare naa ci et cetera gis nga yonent bi sax mi yàlla yónni ci ñun dafa def stratégie keroog bi mu yeggee Medina gàddaay jóge Màkk ñëw Medina. ñi ko jël si woon ñu leen di wax ansaar ñoom ñëpp ay néew di doole la woon ñoo nekkoon les pauvres de Médine euh, économie Médine bi yahud ko yoroon ñoo yoroon toolu tàndarma yi ñoo yoroon gëléem yi te loolu ku ko yor yaa yor économie bi naafeq yi ñoom ñi ñuy wax naafeq yi ñoom Abdallah ibnu Salul ñoo nekkoon ci diggante bi bi mu ñëwee xam ni fii su ma ñëwee jaay doole ñu faagagal ma mbir mi yem fii te fi mu jógee xeex nañ ko fa ba jëlee ko fa dafa naxanteeg ñoom ñu signé li ñuy wax la première constitution du monde la constitution de Médine kenn du attaqué kenn nañu seq jàmm jullit ñi bu ñu xëyee toolu yi lañ daan dem liggéey ci toolu tàndarma yi ñu leen di fay saleer ba ñu dajale dajale dajale ba am doole ba keroog bi bi yahud yi defee accord ak yéefaru màkk yi ñëw bëgg a dal seen kaw ci la ko yàlla jox ndigal ne ko génne leen ci dëkk bi donc loolu li muy fi moom mooy yonent yàlla yàlla su ko sooboon danaan nii rek mbir mi ne mais da ko bàyyi xelam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 Euh, lan moo a frappé ci diaspora bi ak pour yow qu'est-ce qui doit être pour que vraiment ñu soulager la peine des Sénégalais de l'extérieur. xam nga pen moom defe naa sénégalais yëpp ñu ngi dund ci ci ci jafe-jafe fi mu toll nii euh, léeg-léeg sax damay jàpp ni euh, waa diaspora bi est-ce que tanewuñ ci sax ndax ndax mbir mi métti na trop dëkk ba eh, li ko li ko firndeel rek mooy fii nu mu metti métti métti des milliers de jeunes ñu ngay continuer bëgg a jël gaal wala jël désert pour ñëw fii. kon Sénégal ci boppam sénégalais yi ñoo sonn sénégalais yi ñooy souffrir fi mu toll nii te dara waralu ko lu incompétence su régime dara waralu ko lu dul ñàkk patriotisme jël suñu économie tay la ko jël suñu ressource naturelle tay la ko corruption endémique jël say mbokk ak say say say say truc même suñu incompétents yi nga taf leen sa bopp bu ñu sàccee ñu jàpp leen nga ne kenn du leen laal loolu mooy problème mu Sénégal gis nga dëkk yi ñuy ñëw ut si dëkk yi gënuñu ñu ëppale wuñu ñun sax ñoo leen ëppale waaye différence entre les peuples mooy sérieux fii premier ministre bi fi ne wala président am na loo xam ne sañu ko li li président Macky Sall sañ Sénégal Italie ñu ëpp doole foofu premier ministre sañul la centième Amérique moo ñu ëpp doole foofu président ba sañul la milliem kon toujours li may wax nit ñi combat bi. c'est vrai métti na nit ñi foo ñu dem uti parce que njaboot lañu wala soutien de famille lañu waaye combat bi du loolu de combat bi mooy ñu jël suñu responsabilité jàmmaarloog ñii nga xam ne ñoo ngi toog ci suñu xefu bakkan depuis 1960 di def lu leen neex ba xañ askan wi li mu waroon yor loolu rek mooy xeex bi te loolu jeunesse bi comme on est à 64 pour cent de jeunes dans le pays jeunes bi soo waxee ñu ne ñoom ñëpp yem nañu xam ni loolu mënul ne. jeunesse bi moo war a njëkk jël responsabilité le jour où la jeunesse voudra d'un changement en un temps record ñu bàyyi système bi suñu toogee ba tey ñoom Moustapha Niasse ak ñoom Tanor ak ñoom nga xam ne Senghor ba léegi ñoo fi ne di xalamal Macky Sall nga xam ne boo moytu sax mën nañ ko jur damay wax faral di wax ni suñu jógul sama sët sax bu nekkoon président fekk ñu am ay cent cinquante ans bu ñëwee ne leen homme d'état laa nommé ma ministre wala président assemblée nationale donc askan wi loolu nag mooy répercuté wu fii ci diaspora bi parce que problème bu am Sénégal feeñ fi problème bu am feeñ fi fii am feeñ euh, feeñ Sénégal li ma gis ci tournée bi mooy potentiel bi nekk ci diaspora bi macha allah lépp a ngi fi pays diaspora yi bokkuñu fii ma nekk ni itali émigration moodu moodu moo ci ëpp kanada émigration intellectuelle la France ñaar yaa ngi ci boo demee Suisse intellectuelle la fenn foo dem am na réalité mais li leen li li leen boole ñoom ñëpp mooy benn dynamisme bu extraordinaire te dynamisme boobu suñ ko xëppoon Sénégal rek ñu defar Sénégal ñaareel bi mooy secteur bu ne di nga fa fekk ay compétences yoo xam ne da nga naan Sénégal naka la ñu mën a amee lii te jëriñoowuñu ko ñeneen di ko jëriñoo nee naa la daje naa ak États-Unis ñoo xam ne hélicoptère la ñuy defar foofu ci usines yi defar hélicoptère de combat yi laa wax te ci ci responsable conception yi la ñu bokk daje naa ñoo xam ne Wall Street la ñu nekk am na ci ku ma ci dajeel dafa ma ne liir naa si livre bi ci li nga wax ci transfert des émigrés niñ ko war a réorienter pour mu dem ci économie bi dinaa la ci bindal benn document wax la ci lu ma la ci mën a yokkal parce que tey rien que pour financer notre développement bu doon dañuy jëlee les des émigrés au lieu di dem ci dund gi ñu orienté ko ci def ay appel publique à l'épargne état bi mun a lever des obligations émigré bu ne dugal naa temps état bi ne lever ay milliards yoo xam ne du soxla dem eurobond ñu koy teg intérêt dul jeex ba pare dina rémunérer émigré bu nekk ci li muy def te lool dina dugaat ci njëriñu réew mi gis nga xalaatin yooyu fu ma dem ci diaspora bi fekk naa fa ay profil yoo xam ne ñii ñi ngi defar oto ci industrie automobile yi la ñu nekk ñii ñi ngi ci usines yi nekk ci am fa expérience waroon mun a fexe ba Sénégal comme man sama gis-gis mooy nu ñuy def ba industrialiser la Sénégal tey ku nekk fii Italie di liggéey ci usine boo xam ne saabu lay defar wala usine boo xam ne mu ngi transformer noix d'acajou bi parce que fii dañ fiy def noix d'acajou bu bari tey ñooñu naka la ñuy def ba ñu mën a ñëw Sénégal suñu suñu saalu darkase yi nga xam ne indien yee koy jënd ay tonnes di yóbbu ñu mun ko transformer foofu kon potentiel diaspora bi kenn xamul nu mu toll loolu moom euh, tournée bi loolu laa ci njëkk a jàngat euh, xam naa tam problème mu diaspora yi parce que wax nañ ma problème yi li xew ci consulat yi problème mu diplôme yi équivalence yi problème mu euh, euh, seen doom yi ñuy nangu problème mu euh, nu mu tudd ñi nekk ci prison yi problème mu double nationalité tournée bi permettre nañu ñu waxtaan ci lu bëri wax ci aussi lan moo ci suñu gis-gis doo xam ne mënoo ko tënk fii kon tournée bu am solo la mais liñ ci gën a jàpp mooy foofu lay daaneele jàpp naa ni changement bi war a am Sénégal waa diaspora bi suñ ko bëggee changement am parce que Macky Sall ñëpp doyal nañ ci moom ñëpp xam nañ ni mënul xamul te jiitalul intérêt réew mi mais li mu yaakaar bokk na ci bokk na ci ci bu concerné diaspora bi mooy xaalis gi mu yi ñuy teq ci keesu réew mi di dem di ko jox nit ñi ci ci àll bi naan leen su votel leen ñi loolu nag waa diaspora bi kenn ku ne ñi nga xam ne yaa ngi liggéey di ñàkk di leen envoyé boo jëloon sa responsabilité wax ak ñoom lis kenn ki ki ma dajeel Espagne def nga xam ne dafa ne gars yi dafa dem Sénégal ne leen damay daj pour yónni leen li ma leen yónni xamu leen ko on a une chance historique pour changer le Sénégal mat suñu bopp bu ngeen seetaane ba ma Sall jàll ku doon jot dërëm ci man dootu ko jot na ngeen débrouiller ak seen réew donc waxuma sax ñu egg foofu mais waa diaspora bi su kenn ku ne jëloon décision ne ñam ñi ñi ma ko seqal dinaa wax ak ñoom sensibiliser leen ba ñu xam fi mbir mi nekk jàpp naa ni sapp peut être au minimum quarante ou pour cent de l' électorat loolu mun na mun na problème mu Sénégal kon appel boobu lañ leen di lancé di gërëm waa diaspora bi yëpp fi ma jot a jaare parce que fii laa terminé bon Rome laay terminé suba mais di gërëm ñëpp ci accueil bi di gërëm ñëpp ci yéeg-yéeg bi vraiment coxel gi ñu wane ci ñun man xalaat moon yegg na fii gis nga li xew tey fii di leen gërëm it ci euh, Euh, participation bi parce que ñu ngi ñuy jàppale ci bépp fànn ñëw na def tournée plus de vingt mille kilomètres Amérique Nord ba fii jënd ma billet avion fayuma hôtel lépp ñoom ñoo ko jël en charge te loolu gëm naa ni guléet la ci politique ñoo ngi leen ciy gërëm di leen sant bu baax